mes chers concitoyens, j'ai choisi Rufisque, Bourg, Thiès, pour, pour parler le phénomène récurrent des inondations, bien connu du quartier Arafat à Rufisque. Macky Sall, Amadouba, Beno Bokeyakar ont prétendu avoir mis 1000 milliards de francs CFA dans le plan décennal de lutte contre les inondations. Le problème est toujours là, et nous proposons de nous en occuper sérieusement parce que nag ndox bi fu muy jaar foog nga xam ko d'abord loolu laa leen di wax xam-xam moo war yore réew bu loolu weesoo foog ma wax ci foncier bi Amadou Ba l'ascenseur moo c'est le principal responsable des bombes foncières qu'il y a au Sénégal également à Dakar à Rufisque dans la région de Dakar et de Thiès pour ne pas parler de Mbour nee naa leen man dama bëgg changer yi mbir bi ñu am maintenant un ministère chargé des domaines la question de la capitale capitale du problème parce que capitale fii ci Ndakaaru moom mooy concentrer le mal vivre xam nañ ko loolu moo tax la ñu soxla mooy ñu réorganiser le territoire national en pôle régional de développement mënu maa ñëw fii nag waa te duma wax ci affaire u mool yi pêche bi la gars yi yàq te bi la gars yi saax-saaxee di ko joxe ay bateau coréen bateau chinois nee nañu le 3 avril 2024 su si yàlla àndee dana dakk du fi amati fi ci Sénégal asalaamaaleykum ah, mbokki Mbour yi maa ngi leen di ziar yéen ñëpp di leen massaw di jéggalu ñu ci weeru koor yéen a ngi xaar depuis onze heures mais jar na ko parce que ñun ñëpp Sénégal nañuy topp ñii ñooy jigéenu Sénégal ñii ñoo bëgg Sénégal ñii ñoo bëgg askanu Sénégal ak ñoom nañu ànd nag jël Sénégal teg ko ci kot ñu sax dem nañu ba jàpp ne ku war a nekk ministre de finance fii ci Sénégal jigéen la war a doon. xam ngeen am na programme de bourse familiale bu fi Macky Sall lawal depuis 2012 wala 2013 programme bi dañ koo bëgg a yaatal dugal ci jigéen ñoo xam ne am nañu njaboot te amuñu borom kër ñu am ay handicap yu sévère ñooñ tamit dañ cee war a bokk ne retraité yoo xam ne ay artisans yi ñoo ñëpp bokkuñ ci su la sa doom yorule yow doo am dara ñooñu tamit dañ leen bëgg a dugal leen ci programme bi